xasrun mooy qalilun wa daifun fi l arabia kon nag taqdimu bu fekkee ne afalu tafdil bi dafa doon xabar kooku kon nee na danañu koy fekk mu am tuuti wa zawadat jana naxli bal ma zawadat minhu atyabu mu nuyunu wa qaala mu ni ahlan wa sahlan wa zawadat mu yóbbalenu ci jan dégg nga ci kala wa ay wax yu neex jana naxli lu mel ni ki lem nem moo huwa alladi yujna min annaxli xanaa bal déet ma zawadat wax kàddu yamunu yóbbale atyabu minhu moo gën a neex lem seetal mu dawal min ma door a andi afalu ji wa moom la ni wala da taqdim wa la dal ixbaari fa nga xamee ni dañ koo xabaare wa taqdimu jiital ga wujida nazran fekkees na ko muy am lu tuuti te daif la it la da taqdimi la dal ixbaari wa taqdimu wujida nasran la daa kaw ni afala xabaran ma zawadat mubtada la atyabu moo di xabar kon min mi mu jaroon jëf nga ni ñu ko dawale moo boole qilla ak dof ci listima dara gënu leen a tayya laa say a wala shay a min hunna dégguloo dafa waroon ne ak salu amul lu gën a tayel min hunna ci jigéen ñooñu mu dawal min ja wa rafuhu zahira nasrun beneen atte la indi li ciy cosaan daal na nëbb damir mu dellu ci mawsuufam soo ne zaydun akramu min amrin mu nëbb huwa mu dellu ci zayd akramu huwa loolu moo ci doon cosaan waaye mu dem di rafa lismu zahir ni ko fiyan di defee a loolu day nazrun la qalilun daifun ni ki boone maratu bi rajulin afdala minhu abuhu maratu bi rajulin afdala minhu abuhu léegi abuhu mooy faayilu afdala te afal tafdil kon benn damir nekkatu ci buy dellu ci rajulin xanaa sababiyu bi te mooy abuhu mi faayilam moo laaf damir ji dellu ca rajulun ju jëkk ja kooku lañ wax sababi bi rafi abuhu loolu nag maalam yu aaqib filan feeg afalu tafdil toogul place feel nga xam ne feel mënoon na ko fa remplacer way laa bu loolu amee nag kooku rafa am li si mu zahir day daal di rafet te bare lool ci jëfandiku ni nga xamee ni feel dana ko rafa moom la ni fa wa rafuhu zahira nazrun wa mata aaqaba filan fa kathiran sabata rafaam zahir nasrun lu néew la wa maalam yu aqib filan amaar su ko fiil ma nee remplace kon day niroog fiil loolu fa mata aqaba filan waxtu wu remplace anteeg fiil fa sabata sax na kon rafaam li simu zahir kathiran lu bare min al ahwal misaalam kalan tara fi nnaasi min rafiqi awlaa bihi lfadlu min alsiddiq dégg nga kooku nag misaalam bi nga xam ne moom la ñu jëkkat tànn mu leer naññ dégg nga ni ki tey boo ni woon maa raaytu rajulan axsana fi aynihi lkuxlu minhu fi ayni zaydin mu nekk ci diggante yaari damir dégg nga moom li simu zahir jamuy rafa nekk ci yaari damir benn bi delsi ci moom benn bi dellu ca mawsuuf mu jëkk ma ni ki misaal mi maa raaytu rajulan axsana fi aynihi lkuxlu minhu fi ayni zaydi loolu mooy lan ci wala mësumaa gis ko kenn ku tusngal rafete na ci bëtam ni mu rafete ci bëtu zayd loolu mooy maanaa mi maa raaytu rajulan axsana fi aynihi lkuxlu minhu fi ayni zaydi mësumaa gis waa joo xam ni tusngal gën naa rafet ci bëtalam bëtam comme ni mu rafete ci bëtu zayd kuxlu mooy faayilu axsana di lismu zahir nekk na diggante yaari damir fi aynihi ma ngi dellu ci rajulan minhu nag ma ngi dellu ci kuxlu loolu moom palaasu damir la afalu ji ne palaasu feen boo ni woon maa raaytu rajulan yaxsunu fi aynihi lkuxlu min xusnihi ka xusnihi fi ayni zeydin ah wala mooy axsanu kuxlu minhu ay min alkuxli fi ayni zeydin falkuxlu marfuun bi axsan li sixati wuquci ficlin bi macnaahu naxwu maa raaytu rajulan yaxsunu fi aynihi lkuxlu ka zaydin ay ka xusnihi fi ayni zaydin saw sawmu fiihi min ashri zil hijja amul ba tey noonu ahabu ila llahi assawmu mooy faayilu ahab ma min ayaamin amul yenn bis yoo xam ne ahabba gën naa sopp lan faayil assawmu faayil lismu zahir minhu dégg nga min as ahabba ila llahi fiha assiyaamu assawmu minhu ay min assawmi fi ayaami alxijja kon xadd ba kii tam naka noonu lan tara fi nnaasi min rafiqin awlaa bihi alfadlu min alsiddiqi ay min wilayatihi bi siddiq lan tara doo gis fi naasi ci nit min rafiqin benn àndaale awlaa bu gën a yell afala jàngoo bihi ci moom alfadlu mooy faa'ilu awlaa min alsiddiqi asluhu min wilayatihi bi siddiq fadlu nekk diggante yaari damir awlaa bihi ma ngi dellu ci rafiq alfadlu min asiddiq ay min wilayatihi moom fadlu bi siddiq annaat ci tawaa dégg nga tudd na tawaabi yi ci ijmaal gannaaw ga mu fasale ko baaban baaban ba ba muy àgg wa ida jtamaat bu fekkee ni tawaabi yëpp daje woon na benn yoon nee na na nga jëfandikoo bi qawli baadihim qad min naatafa albayaana fa akkid summa abdil waxtin bi atfi alxuruufi nee na bu bu fekkee tawaabi yëpp dafa daje woon li gën nga dawal naat daal di ni jaa zaydun at tawilu teg ci bayaan bayaan dégg nga abu fulaan ndegam abu fulaan lañ ko gën a xamee teg ci tawkiit nafsuhu teg ci badal axuka teg door a andi lu ñu xataf ak araf door ni wa zaydun noonu la ñu gën a ëppante importance daa daga dawal naat ja ñaareele bayaan ñetteele tawkiit ñeenteele badal suñu dajaloo woon noonu la ñu gën a amante importance dégg nga ni ñu nag jumhur nag dañu ne al aamilu fi taabi huwa al aamilu fi l matbuuci illa al badal fal aamilu fiihi muqaddar nee na nañ aywa su ko defee loolu nag al aamilu fi taabi huwa al aamilu fi lmatbuuci dégg nga aywa bi waasitati xarfin fi nasaq wa bila waasitatin fi gayri bu dee ci atfu nasaq moom bi waasitati lxarf jaa zaydun wa amrun aamil ja rafaakee moo rafaakee te mooy jaa aji waaye nag bi waasitati lwaawi dégg nga bu dee ci taabi bu dul nasaq nag nee na bilaa waasitatin an naatu kon nag noo ngi waxal naat xasoosan yatbau fi li'raabi lasmaa al uwal naatun wa tawkiidun wa atfun wa badal nee na dana topp lisi bi yatbau dana topp naatu naat ak tawkiid ak ataf ak badal te ñu di leen tudde ay tawaabi ndax loolu danañu topp lasma al uwala lisim yu jëkk ya uwal uwal jamul ulaal al uwal yu jëkk dana leen topp fi leeraabi ci leeraab danañu leen topp ci leeraab dégg nga lan mooy naat nag ki nu fasale bunt bi ndax bii bunt moom naata ko moom mu door a indi yi ci des ci yeneen bunt fa naatu taabiun mutimmu ma sabaq fi wasmihi aw wasmi ma bihi atalaq fa naatu taabi la dégg nga mu yóbbu lépp luy taabe waaye ba mu ne mu timm maa sabaq mu nekk naat boo xam ne moo sippiyee ca des buy mottali yee ko jiitu bi wasmihi ci sifaam bu ca ne wuuteeg yi ci des benn tegtalewu ci sifa bu ne ci mat booba waaye naat nag jaa zaydun at tawilu mottali na zayd ci kaw wax gi mu wax sifa bu ne ci moom aw wasmi ma talaqa bihi wala sax sifa lu aju ci moom melow lu aju ci moom ni ki soo ne at tawilu abuhu jaa zaydu ni tawilu abuhu kon tawilu lu mu mottalee zayd te du jegee ne sifa bu ne ci moom ndax tool bi du sifaam waaye sifas lu aju ci moom la mooy sababi yu boobu dégg nga mooy di abuhu boobu nga xam ne ma ngi laaf damir sabab awas mi ma talaqa bihi loo sifas lu aju ci moom ni ki abuhu ci su ko defee naat nag lu mu yàgg-yàgg dana nu jëkk a wax ni ñaar la xaqiqi wala sababi naatu xaqiqi yu nag moom daanañ wax ni day topp manuutam ci ñeent yu bàyyikoo ci fukk maanaam fukki ñetti anami li arab ci lisim irabu lisim rafa nasab xafat dana ca jël benn yetti meloy lisim ci wàllu adat fokk muy benn mbaa tasdiya wala jamu yett yooyu dana ca jël benn juróom benn ngo yaaru xaalu lisim nakira doon nakira wala doon maarifa naatu xaqiqi yu da cay jël benn yaari xaalu lisim te mooy tazkir ak taanis naatu xaqiqi yu da cay jël benn moom ñeenti parti yi booleen boolee muy fukki yëf dana ci jël ñeent booy looloo tax ñu naan ñeent yu bàyyikoo ci fukk bu dee naatu sabab yu genn wàll ga lay def ñaar yu bàyyikoo ci juróom lay lay jël maanaam naatu sabab yu moom liraab ji lay jël du dëgg ak nakiraal gi wala maarifaal gi rek jeex na ya ca des faayilam la ca faale ndax moom dafa toog place suuf feel moom itam dafa mel ni feel ngóor ak jigéen faayilam la ca faale du dëgg aywa waaye lirab ji nag ak nakiraal gi ak maarifaal gi yooyu dong lay topp toppal ki la dégg nga ah kooku du ca topp man ot ba suyoo boobu man ot may góor mu nekk di jigéen mbaa man ot may jigéenu ki da ngay wax ni bu dee naatu sababi xaama maana maratu bi rajulin qaimatin ummuhu qaimatin naatu kana rajulin lu tax nga jigéenal ko góoral ke day naatu sababi la te mooy naatu sababi dafay rafaa lisim zahir ju laaf damir ju dellu ca man ot ma noonu nga koy xame amma naatu xaqiqi yu moom day nëbb damir ju dellu ca man ot ma rek ndax moom sifas boppam la naatu sababi yu nag day rafaa lisim zahir ju laaf damir ju dellu ca man ot ma ni ki maratu bi rajulin qaimatin ummuhu wala maratu bi imraatin qaimin abuha qaimin naatu imraatin waaye yi nga taanis gi maanaam tëskiir gi faayilam dong la ci xool ni nga xamee ne qaimatin naatu rajulin tanis gi faayilam rek la ci xool ndaxte faayil ji sabab yi la ci moom dafa laaf damir ju ca dem fa naatu waaye nag bu mu ci mën doon xaqiqi baag sabab yi taabi taabiun mutimmu ma sabaq bi wasmihi aw wasmi ma bihi atalaq waxoon nañ firi nañ ko wal yuta fi taarifi wa tankiri ma li ma tala kamrur bi qawmin kurama nañu ko jox ci taarif ak ci tankiir maalimatala la ñeel la mu topp ci moom dégg nga ni ki umru rombal bi xawmin ci aw gaay kuraba ñu di way tedd yi nga comme xawmin nakira la kurama wa huwa moom naat nag la da tawxiidi wa tadkiir aw siwaahuma ay aw furuucihima naat nag bu dee ci wàllu def ko muy mufrad wala def ko muy góor wala seeni bànqaas banqaasu tawxiid benn la taarif dégg nga déet ñaar la banqaasu banqaasi tawxiid te mooy ifraat mooy tasniya wala jamu banqaasu tazkir benn la mooy taaniis ndaxte lu tax nu ni banqaasu cosaanu lisim lu mu doon an yakuna mufradan cosaanu lisim lu mu doon an yakuna muzakkaran kon nag fa ifraaduhu wa jamuhu faraani la kama anna taaniisahu far'un لأنه المحت... محتاج إلى علامة والمحتاج فرع أما لا يحتاج لذلك لولا جبلو سواهما أي فروعهما تذكير جيك إفرا... توحيد جيك إفراد جيك جمع جيك ولا تذكير جيك تانيس جيك يوي جرو ممنات كالفعل لك سودي سببي دال دوشا توب كله آه... تي تذكير جيك إفراد جيك kon du ca topp manut su dee xaqiqi yu nag da koy topp ci ñeent yëpp kii nag ñaar yu bokk ci juróom liraab ja ak nakiraal ga wala maarifaal ga yooyu yaar yu bokk ci juróom da nga de kal feeli faq fu toppal maa qafaw te misaal mi nu doon wax feeñal na yëpp jaa maratu bi rajulin karimin naatu xaqiqi la damir la maratu bi rajulin qaimatin ummuhu naatu sababiyu la gis nga taanis gi ma ngi ci topp faayilam mel ni feel mel ni yow munoon maratu bi rajulin qaamat ummuhu du noonu nga ko doon waxee soo ko doon wasafe jumla maratu bi rajulin qaamat ummuhu wala maratu bi imraatin qaama abuha noonu la sifa seet mel wan at bi mushtaqin ka saabin wa zarib wa shibhihi kadi wa za wal muntasib wan at na nga naatal bi mushtaqin alal asli moo doon cosaan jaa rajulun karimun ka saabin aji jafe ah min assuubati sifa la ismu fayil la wala zarib aji ñaw lamiñ zarabatu lisaan maanaam mooy ñaw lamiñ mooy balaaxa ak fasaaxa rek wa shibihi wala lu niroog mustaq niki ismu ishaara niroo naag mustaq niki jaa rajulun jaa zaydun haada bina al mushaar ilayhi soo nee za dafa mel da nga ni mushaar ilayhi mushaar nag ismu maf'ul ah kaza niki dégg nga kaza niki za wa zi ak zi dégg nga bi maana maratu bi rajulin zi maalin wala raaytu rajulan za maal wal muntasib ak lu askanu maana niki borom yaawu nisba niki jaa rajulun makkiyun wala qurashiyun du dëgg wal muntasib yooyu danañu ko def naat jaa rajulun qurashiyun dégg nga wala jaa rajulun zo maalin wa naatu bi jumlatin munakkara fa uctiyat ma uctiyathu xabara danañu naatale jumla lu ñu koy naatale nakira jumla nakira rek la mën a naatal maarifa munu ko naatal xaal la mën a doon ci moom wal jumlatu baada nakirati naatun wa baada almaarifati xaalun soo ne jaa rajulun yadxaku yadxaku barabu rafaa la nekk di naat ci rajulun soo ne jaa zaydun yadxaku yadxaku barabu nasab la nekk di xaal ci zaydun fa utiyat bu boobaa nag suñu naatalee jumla dañu koy jox moom jumla ja maa utiyatu lañ ko daan jox xabaran fekk mu nekk xabar bu mësee doon xabar damir ji ca daan nekk ñu di ko wax rabit yem ak damir bii ne ci silas mawsul ñu di ko wax aid seen maanaa benn la rabit li annahu rabata al jumlata bil mubtada'i li anna al jumlata tastaqillu bi dilalati fa ida lam yarbithu shay'un infarada bi dilalatihi du faale mubtada ma ko dawlu woon darabtuhu soo ko bàyyee rek darabtu soo ko bàyyee rek du du mën a dem ak boppam du jumla la boo ko bàyyee mu dem kon nag la koy booleeg zeyd damir ju ciy dellu la nga ni zeydun darabtuhu ndax mu bu takkee jumla ji ak mufrad mi ko dawlu woon mubtada muy benn kalaam looloo tax ñu tudde kii raabit fee nag ñu tudde ko aid du dëgg leylu wa ayatul lahumu leylu nasluxu nuy maanaam fëlli minhu nahaar nga ni jumlay nasluxu naat la ci leylu wa bu fekkee ali jins nga ko def jubluwoo ci genn kii te foofu jins la fi man doon nee na guddi laa yaani leylatan bi aynihi kon moo tax jumlay nasluxu man wala qad amurru ala laimi yasubbuni fa madaytu summa taqultu laa yaaniini laimi jumla yasubbuni naat la ci moom li anna al al jinsiya aywa madxuluhu kan nakirati mathalan fa yusafu bil jumla fa yuamalu muamalata nakirati bil wasfi bil jumla kal wasfi bil jumla wamna dégg nga وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمرت سبي نانا في جبنت نانك وامنع ترف بتاتا هنا في إيقاع ذات الطلب تبل جملة جوخاني جملة طلب لنك لمر لا ولا نهي لا جملة أمر ولا جملة نهي طلب ولا بخيت طلب يجيكت آه دعاءك لاستفهامك عرضك يب جملة طلب من تركونك بمن دون نات مك lu néew la cay am ci mu doon xabar naat dékkuwu ko jumla xabar waru da doon talab naadir la tuuti la cay doon boo bu fekkoon ne da nga ni zeydun laa tadribhu e xabar la teyit nahyu talab la du dëgg zeydun laa tadribhu du xabar la waaye loolu bariwu la am ndax talab la waaye la ca néew loola ñu di ko muñ ci buntu libtidaa fii ci buntu naat moom du ko nangu mukk abadan wa in atat bu dikkee ci waxu arab maa yoohimu jawaaza dalik luy tax nga defee loolu mën na nekk fa admir nëbbal alqawla wax soo ko defee tusib nga jot sawaab na nga nëbb baatu xabar ba baatu xawlu moo doon xabar ja su ko defee talab bi nga indi maxkiyu xawli baa nekk barabu nasab ni ki waa ji doon ŋàññi genn giiru arab gu ñu wax xassaan nee na dafa fanaan fi ñoom ah wasafe na leen lu umu ak nay nee na fu ne jëm naa fa te ñu ngi yor alal yu ni gàññ ñu ngi yor seen soow ñu ngi yor seen eh, diw ñu ngi yor seen tàndarma dégg nga nee na ma gudd dox mu ni nag bit naa bi xassaana wa mizaahum wa mizaahum ta it min labanin laha wa tamrin wa aqit ma ziltu as'aa baynahum wa axtabit xata ida janna dalaamu waxtalaq jaa'u bi madqin hal ra'ayta diba qat dégg nga ŋàññi giiru googu nee na fanaan naa fa wa mizaahum ta it seen bëy yaa ngi luur di meem min labanin laha ngir bare soow mi nekk ci moom dafa leen sonal wa tamrin ak bare seen taar wa aqit ak seen bare aqit ma ziltu as'a baynahum wa axtabit maa maa ngi nekk toujours di tañaxuy dox seen diggante wa axtabit te may làmbatu di bàccaatu lixtibaat ci soon moo doon bàccatu garab di wut lu nu reere xata ida janna zalaamu waxtalat ba guddi gi lëndëm këris jaxasu jaa'u bi madqin hal ra'ayta diba qat jaa'u ñu door a andi bi madqin ci njarum soow masqin luy naatam hal raayta diba qat ndax mas ngaa gis till mu maanaam bu fekkee mas nga gis till maanaam noona na till mel deru till mel la bari mel kon nda ndox mi dafa néew ci soow mi ba tis tis yu weex tuuti la cay doon mel ni deru till ndox dafa ñuul soow mi néew ba di ci tis tis mel na deru till njar mu mel na deru till mu ni jaa'u bi masqin hal raayta diba qat loolu la taxaw taxawaay ci maanaa ndax yoon yi ñu taawil ni maanaahu jaa'u bi masqin maqulin inda wasfihi maqulin jooju mooy xawlu ji nga ni moom ngay na nattale waaye du ñu bàyyi mukk talab bi hal ra'ayta listifham boobu mun mun mu nekk direct dégg nga sifa déedéet wamna huna iqaa zaati talabi huna fi baabi naat na nga fi tere tabbal fi jumlay talab bi yow muy atoo bi masdarin kathira dégg nga faltazamu al ifraada wa tadkira wana atoo danañu naatal bi masdarin ci masdar danañu ko naatale kathiran lu bare masdar mu ñu nakkiraal danañu ko def naat lu bare dégg nga faltazamu bu boobaa ñu taqoo nag al ifraada def ko muy mufrad wa tadkira ak def ko muy mudakkar doonte topp na ci jigéen nga naan jaa rajulun adlun wa mraatun adlun wa rajulaani adlun wa rijalun adlun tax fokk mufrad nga koy def muzakkar jaa maana nisaun adlun rek ngay wax su ko defee nga taqoo ca ifraat ak tadkir ala tawili sifa maana aadilun wala ala tawili xadfi almudaaf ay zu adlin wa zaatu adlin wa zawu adlin a yooyu yaarit anam daal waaye des na ko wasafee ونعت غير واحد ونعت غير واحد إذا ائتلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف ونعت غير واحد naatu ku dul benn di ñaar wala mbooloo ida ixtalafa su lafs ba wuutee kon farriqhu tàqale ko aatifan bi bu ngay xaataf kenn ka ci moroom jaa rajulaani tawilun wa karimun du dëgg ñaari sifa yi bokkul laa ida talafa xuba su fekkee dafa dëppoo di benn benn sifa yi ku ci ne benn bi la kon na nga ko def na ñoom rek su dee mbooloo nil nil jaa rijalun kuramaau waaye bu dee karimun ak baxilun da nga naan jaa rajulaani karimun wa baxilun kon da nga koy ataf su fekkee ni nag benn la karimun ak karimun nga ne jaa rajulaani karimaani jaa rijalun kiraamun loolu mooy maanaa wa naatu gayra waxidin ida xtalaf fa fa fa aatifan farriq laa ida talafa bu jàggee ne bu fekkee dañoo dëppoo kay kon falaa tufarriq wala taatif bal da nga koy tasniya ndeem tasniya la topp jaa a rajulaani karimaan wala bu dee kii dégg nga nga ni ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء wa naata macmuulin macmuulay waxiiday maanan maana atbic tofalal naata macmuulay aamilayni waxiiday maanan wa amalin naatu dégg nga ñaari maamooli yaari amil yoo xam ne ñoo bokk maanaa bokk jëf seen maanaa benn la seen jëf benn la dégg nga seen naat maamoolu ñaari amil su fekkoon ne xarafu jar waleen jar xarafu jar amil la majruur maamool la mu naa loolee nga xam ne ñaari amil yu bokk maanaa jëf ñoo leen ñoo jëf ci ñoom kon naatam na nga koy tofal bi xayri istisnaa i suuratin mel suuratu raf i baag bu nas baag bu jar ba yëpp tofalal dégg nga ni ki tey masalan doo ca setti benn nga ni zahaba zaydun zahaba dem na te daf jëfam maanaam mooy dem na jëfam mooy rafa in talaqa amrun in talaqa maanaam dem na la amrun daf ko nar a rafaa faay kon zahaba ak intalaqa ñoo bokk maanaa bokk jëf kon naatu zaydun ak amrun bu dikkee dégg nga atbi'hu bi xayri istisnaa i surati rafi wala surati nasb wala surati jar nga ni tey zahaba zaydun wa intalaqa amrun al aqilaani haddastu zaydan wa kallamtu amran haddastuhu kallamtuhu du benn la nga ni alkarimayni ca nasab ga jar ga marartu bi zaydin wa justu ala amrin de justu alayhi mooy jàll naa ko maratu bihi lu mu doon du mooy jàll naa ko maratu bi zaydin wa justu ala amrin as-salihayni amma bu fekkoon ni maanaa amil yow ñoo wuute mbaa seen jëf wuute fokk da nga koy xat bu ko tofal xat u nag bu dikkee def ko xabaru mubtada wala nga def ko mafoolu feel ju ñu xatam nga rafa wala nga nasab ni ki jaa zaydun wa dahaba amrun ah dikk naag dem na ka toog ak kaay la du dëgg nga ni al aqilayni tofaloo ko de da nga koo def ma mafoolu fi'l ani al aqilayn du dëgg wala nga ni al aqilaani huma al aqilaani loolu rek ngay boo xat moom foo ko déggee def ko xabaru mubtada wala mafoolu fi'l bu ñu xasaf boo xam ne du feeñ mu du dëgg wala ñu wuute jëf waaw wala wala ñu wuute jëf ni ki maratu bi zaydin baa bi dafa jar jaawastu amran jaawastu dafa nasab kon jëf ya bokkut kon it alfaadilayni aani wala alfaadilaani huma alfaadilaan in talaqa zaydun wa kallamtu amran aldarifayni wala aldarifaani waaye doo mën tofal mukk dégg nga atbi ji mu wax nag maanaam in chita bu la soobee dong kat li anna al itbaa laa yakunu waajiban abadan bu la neexoon ni jaa zaydun it tawilu rek néewuñu la fokk nga tofal ko ci kat ah ah na bu la neexee ni jaa zaydun at tawila ani at tawila du dëgg mu dellu ne dégg nga wa in nuutun kasurat wa qad talat muftaqiran li dikrihinna utbiat wa in nuutun su fekkee ay naat yu bare su fekkee ay naat kasurat bare na waqat talat te fekk ñu topp muftaqirat manuut muy aji aajowoo li dikrihin na ci ñu tuddal ko yépp pour mu door a leer bu fekkee boo tuddul yépp li ñu bare bare foog nga tudd yépp ñu door koo xam ndax benn boo ci tudd du ko mën a ràññi ndax am na ku mu ko bokkal misa defe naa jaaroo nañu ci démb ci kàddu su fekkoon ni zeyd dafa nekk tawil nekk aalim nekk xayaat ah waaye am na meneen zeydi ci dëkk bi moo xam ni moom it aalim la am beneen fee boo xam ni moom it xayaat la am beneen fee boo xam ni moom it tawil la